ñoo ngi leen di nuyu niñ ko faral di defe rek Alé njaay lañu tudd dëkk ci commune Niakhène ci département Tivaouane waaye dëkk biir Niakhène itam bokk tam ci alliance des forces du progrès bu président Moustapha Niasse di nuyu di sant toute la presse ndaje tey bi li ko waral mooy dañu dëkk ci gox juddoo fa màgge fa am cofeel ci gox bi bëgg a taxaw gox bi tam am yéene ci gox bi loolu nag bi nu ko defee moo tax tey ñuy dalal sunu ay partenaire te partenaire bi ki ci jiitu di monsieur président Mbaye Dione mu ñëw ànd ak une porte délégation euh, mën a xool askan wi li ñuy dundee mën a xool askan wi jafe-jafe yi fi nekk waaye mën a indi tam yaakaar ci askan wi waaye mu def ko ci tam ci turu alliance des force du progrès loolu moo waral jataay bi tey nu ànd ci ak euh, ñëpp nag ànd ci waa gox bi yëpp waaye ànd ci waa ñaaxeen yëpp ci konditu sunu coordinateur l'infatigable fatigable Dieng Cote euh, li ñuy def ci présidentiel moom mënu gunu ci wax ndax politique ak parti dafa am discipline kuréelu parti yi ñooy daje nañu daje woon 2012 avant les élections waxtaan dem bi ñu paree ci loolu ñu waxan ni ñii di dem élection ta bokk ci réew mi en tout cas décision bi ñuy jël ku génn rek deuxième tour ñun danañ la jàppale le président. Macky Sall génn deuxième tour ñu jàppale ko boobu ba tey itam muy jël cër yu am solo nag di ko dénk suñu responsable le président Moustapha Niass ndax ni ko monsieur le maire waxee léegi rek ñaari yoon ñu dénk la assemblée nationale defe naa ni jafe na loolu nag bala ñuy mën a wax dara ñun dañuy déglu instance yëpp déglu kuréel yëpp waaye li ci am solo mu ma xol li ci gën a am solo politique soo ko def dangay am fulla li ci gën am solo mooy politique boo ko def dangay am fayda waaye ci politique boo ko def da am bëgg-bëgg nag ambition boobu la président wax léegi wane ni ñun kenn ku nekk ci ñun war na mën a dox dara ci réew mi war na mën a am cër ci réew mi war na mën a am téye lu mu yor téye ci réew mi foofu la waxee ni dañu toll foo xam ni def ndëpp jot na nag ci kuréeli politique yi ndax le président Ousmane di Dieng da doon naan même boo dee ànd ci kuréel kuréeli politique ba nga ànd bala nga caa mën a gañe da ngay fexe ba gañe fa nga nekk. loolu moo tax ñuy santaane ñun ñuy dikk ci suñu base di ko massifier àndandoo nag ci suñu base liggéey fi liggéey bu am solo àndandoo ak militants yi àndandoo ak responsable yi àndandoo kilifa yi massifier nag suñu base massifier suñuy militant gën a taxaw suñu militant ba ëllëg nag kuréel yi ñu ànd lu ñu wax rek. incha allah danañ xam ban décision lañ fi jël waaye problème élection moom nan lañ cee demee ak kan la ñuy àndal ñun yarewuñu ci loolu ci politique ndax dañu am ay kilifa nag ci politique yoo xam ni dañuy waxtaan ginnaaw ñun buñ waxtaanee ba jox leen suñu xalaat. di di sant yàlla nag di sant yàlla ndax yàlla man daf ma nattoo sama politique ay ndaw a ci ëpp dama jàpp ni ndaw ñi ñooy espoiru ëllëg moo tax. kii di coordonné liggéey bi di Lat Dieng Goor di ndaw waaye mu tànn ay ndaw rek ñu wër ko nag te ndaw ñu nu yor bu la fi bu la fi guddi àjjuma fekkoon defe naa ni da nga naan ñii ñan lañu te ñoom ñëpp ay étudiants lañu nag ñi ngi ci xasida yi ñi ngi ci sikkar yi ñi ngi ci wekk kilifa yi ñun ndaw ñu am dañuy wekk kilifa diine ndax ñun kilifa diine yi la am. ndaw ñi nu am dañu discipliné ndax réew boo yaruwul mënoo caa teg loxo ndaw ñi nu am dañ leen éduqué dañ leen yar dañu am ay taalibe ñun lu nu mën a def taalibe gi moo nu ko gënal politique bii nuy def kilifa diine yii nu am ñun bu noonu tey bàyyi leen ko ñun ñu bako te kenn ëpp nu ci xam-xam kenn gënul ci am xalaat kenn gënu ci am yéene mais ñun ci taalibe la ñuy dem wekk kilifa diine yi jox leen cër. ku leen mën di xas ak ku leen mën di saaga dafa fayul rek walla fayut naar bi xorom si metti woon na Serigne Touba génn ci nit ñi metti woon na maam Sidi Hadji génn ci nit ñi metti woon maam Limamou Laye génn ci nit ñi waaye metti woon na nag maam Abdoulaye ñas génn ci nit ñi ñooñu nag bu ñu defee li ñuy def ba téye Sénégal Sénégal or di fi feeñ Sénégal jamaa di fi feeñ Sénégal pétrole di fi feeñ loolu du kenn ku du suñu kilifa diine yi ñooñu nag ñun ndaw ñu nu yore ci commune Niakhène waaye ci département Tivaouane du nu bokk ci loolu ànduñu ci te rafetluwuñu ko tey itam nag ku ko mën di def ku ne yow la engagé waaye ku ko mën di def ku nekk itam du tax ñun sunu ngëm-ngëm ci Serigne Touba ak magi kilifay diine yi deñ tey lañ leen gën a gëm tey lañ leen gën a wóolu tey lañ leen gën a faale ndax nag bu nu juddoo ñooy njëkk ci ñun bu nu ñuy tudd ñooy njëkk ci ñun bu nu faatoo ñooy mujj ci ñun man kat mënuma nangu ak fu ma man di nekk ci àdduna su ma fi bàyyee nañ ma yóbbu Daaru Salaam ca maam Cheikh loolu nag mënuñu koo gëm ba pare ñun nit di wax kilifa diine dara te duñu metti naqari nanu naqar rek lan man nag ndax amuñu sañ-sañu dóore amuñu sañ-sañu xuloo amuñu sañ mais dama ni ñun ndaw ñi nekk ci commune Niakhène daal nekk ci département Thiès duñu saaga kilifa diine duñu saaga ay mag duñu xas mag duñu wax lu ñaaw ci kilifa diine yi xalaatuñu ko te kenn mënu koon nu ko tax a def nag ndax gox bi nag wax naa leen ba tàyyi mooy goxu maam xaalima jaxate kala gox bi mooy gox bi nga xam ni moo ëmb ci la dramaan yi gox bi moom ëmb mewndu jaxate yi nga xam ni ñu bari ci waa kër Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke sunu yaakaar Serigne Abdoulaye Mbacke waaye gox bi itam mooy gox bi nga xam ni fi la ñu jëlee woon sëñ moo Modou Moustapha bi ku baax ki wàcceeb liggéey waaye gox bi mooy gox bi nga xam ne bi ngeen di dugg itam kër Serigne Fallou Mbacké ngeen yam waaye gox bi mooy gox bi nga xam ni tam fi la waa kër maam Cheikh Anta nekk sunu yaakaar tey ëllëg Serigne Anta waaye gox bi itam fi la ci lisaate yi nekk dëkk yi nga xam ni sunu mag ñu baax ñooñu nga xam ni bu bu bu tàkkusaan xasee jot rek naas bi la àq ji commencé jib loolu nag ñun loolu la ñu gëm te ci loolu la ñuy dox te ci loolu la ñu nekk te kenn mënu noo jëlee ci loolu nag. Euh, am mbégte lool ni ñu yàlla maye tey. sama ginnaaw ma jiite région bi ànd ak samay nattango yu jóge ci département Mbour département Thiès euh, ville de Thiès mais également département Tivaouane bu ñu dalal tey plus exactement fii ci Ñaaxeen ñu ñëw def fi assemblée générale boo xam ne ay la yéwén yéen a ko couvrir xam ngeen ne jàmm rek moo fi xew entité yi war a wax yépp wax nañu ndaw ñi wax nañu jigéen ñi wax nañu département yi wax nañu ki nga xam ne moo toogal parti bi di Cheikh Ahmadou Bamba Sall di collaborateur ci président Moussa Fagna di membre fondateur parti bi di responsable donc ci département région Louga yore commission nationale de la massification du parti ñëw teew ñëpp wax nañu ay la ween wax bi benn la AFP dafa war am fulla ak fayda li taxoon ñu sos ko ñu delluwaat ci mooy AFP dañ ko sosoon ngir ñu jël nguur gi jël nguur gi nag euh, euh, bokkul ak ñu boole la ci nguur gi ay la yéwén ñi ngi ci coalition boo xam ne liñ ci war ñu ngi koy def ba heure bi may wax ñi ngi ci bennoo te génnuñu ci li ñu ciy génne nag foog naa ne du lu gaaw parce que nit ki dangay ngay cohérent munoo ànd ak nit fukki at ak benn mu war a jeexal mandaam da ngeen war a toog waxtaan xool li ngeen def li ci jag ak li ci jagul fi ngeen jëm ndax di ngeen ci mën a ànd loolu nag mënuñ ko def ci mbedd mi fi ñu koy defee moor ci instance yi instance yi mooy ci section yi ci délégation départementale yi ci coordination régionale yi ak ci bureau politique ay la yéwén yàlla may nañu responsabilité ñu mën a teew yooyu yëpp cër bi ma ci yàlla may nag mooy ma woo ñi nga xam ne ñoo booti ci man ci région bi ñu waxtaan ay la yéwén li ñuy waxtaane mooy d'accord nañ ne partie bi lépp lu muy def def ko def ci ceey ak teggin ci orma ci sutura mais également ci diisoo diisoo ngir weg ñi ñu xam ne ñoom la ñu jiite mais diisoo également ngir weg sénégalais yi parce que en définitive parti politique responsabilité boo mënti am danga nga war a sóoraale ñi nga jiite. décision bu ñu mënti jël moo xam ci élection yi ñu jëm ak yeneen ak avenir parti bi ci coalition bi parti bi moo ko war a décider waaye du benn nit moo ko war a décider du ñaari nit waaye ci instance yi ñu ko war a décider ñuy ñaax parti bi nag parti mu créer conditions yi pour débat yooyu mën a am loolu moo tax suñu responsabilité ñu def ko. di ñaax yeneen région yeneen département yi ñu def ko ñu ñaax bureau politique mu def ko bu ko defee dañ taataan xalaatu ñëpp buñ ko taataanee ñu jël dagal bi nga xam ne moo gën ci parti bi li ñu waxtaane tamit mooy jot na AFP renouveler waat ay instance am parce que parti dafa am ay charte yu ko tënk mu règlement intérieur ak statut statut yooyu ak règlement yi nee nañ ñetti at yu nekk dañu war a dem congrès AFP ay la yéwén fukki at a ngi nii demul congrès fukki at ak ñaar 2011 lañ defoon dernier congrès ma nekkoon responsable des jeunes ca laa ne ma nekkatuma ndaw damay organiser jeunes yi ñu dem congrès mat boobu ma amoon nag ba ne damay joxe lenge yi damay ñaan ñi nga xam ne yor ñor ndomb tànk yi ñu crée condition ba ñu renouveler waat nit ñi gën a am motivation ay la yéwén yi jiite ndaw ñi nekkatuñu ay ndaw dañu war a déclencher section ñu bari ña leen jiite woon ñi dem nañu ñi nekkatuñu fa wala buñ fa nekkee tamit animé wuñu ñu foog ne parti buy dox dañu war a animer nit ñi amaat beneen motivation loolu mooy tax projet de société bi ñu jaayoon sénégalais nit ñi gën ko gëm tant que loolu amul ay la yéwén dina nekk ay tolof tolof te parti bi day gën a naax saay et je pense que lii ñu def wane na yoon bi te duñ ko yemale fii nañ ko def Mbour nañ ko def dans la ville de Thiès danañ ko def dans le département de Thiès di ñaax tamit ndaw ñi comme ni ngeen ko waxe ñu delluwaat ci dal responsable politique yi ak boor bu ñu mënti nekk du côté du pouvoir comme de l'opposition ñu xam ne violence réglewul dara wax ju ñaaw ji nag tëkku yi ñu ngi koy gis ci réseau sociaux yi ñu ngi koy gis ci plateau télévision yi ñu ngi koy gis fépp di ko gis ci ndaw yi waaye di ko gis tax ay njiitu parti di ko gis ci kujje gi waaye di ko gis ci parti au pouvoir bi fépp fu mu mën a jóge nañ xam ne violence defarul réew réew yi am guerre civile gis nañ fa mu mujje nañu ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm te jàmm boobu ñun ñoo koy suuxat ñoo koy suuxat te teewul lépp lu waaye war a am ci réew mi da nga ko am parce que yàlla noppi na waaye doole fitna violence du mayee dara ku yaakaar ne mooy joxe nguur da ngay nax sa bopp yàlla noppi na kon nañu ànd yar ak dal ak teggin di féliciter bu baax les départements de Tivaouane ale mii nga xam ne euh, bi mu ñëwee ci parti bi euh, yematul sax ci ci commune Niakhène waaye mi ngi ci département bi yëpp fu ñu xewle mu ñëw teewal fa parti bi kon mu ñu lu ñaanal ko yàlla di ko wax ne lu ñu ko jàppale woon dinañ ko gën a jàppale peut-être région bi ak département bi ñoo ko doon jàppale waaye parti bi tey gis na li mu wone te ah li mu wone de bëri ñu ko bëriwul bëri nañuy wax te mënuñu ko de kon je pense que bu ñu ut parti loolu lañ ñu nag du ñu yem fii du ñu yem sax ci région bi waaye dinañ def le tout fépp fu parti bi soxla animation danañ ko def ba delloo si waat yaakaar pour espoir bi nga xam ne moom la AFP doon suscité mu suscité ko loolu nag dañ koy def ci instance su parti bi duñ ko def ci biti duñu xaxar ma sàmb duñu xaxar ma demb waaye dañuy poser le débat et je pense que buñ ko defee yàlla mën na def lu gën ci réew mi. ay militants yu discipliné nañu bëgg nañ parti bi buy jël décision mu associé ci nit ñi ñu wax ci suñu xalaat loolu mooy cëru parti bi bëgguñu parti bi tëju jël ay décision te mosul demee noonu te yaakaar naa du demee noonu. waaye ay la yéwén lu parti bi nar a jël danañ fa wax suñu xalaat waaye lu parti bi jël mooy xam ci biir bennoo la wala ci biti bennoo lu parti bi xasee de si ñun ànd nañ ci parce que ay militants yu discipliné lañ